Ok, que não ñu archéologie bi ba noppi niñ ko daan defe rek lañ koy defe tey nag li ëpp solo ci li ñuy def te war cee taxaw moo di ñaan ginnaaw bu ñu fàttalikoo suñu boroom yàlla mi nga xam ni moo ñu bind di biir boo xam ne bii du du folliku du faatu du fàtte ya. du gëmmeentu du nelaw te ku ku mu jàmmal kenn mënatulaa sonal ku mu jubloo sonal kenn mënatulaa may jàmm jëmmi buur boobu nga xam ni moonu bind te moom nu sàkk te te ci ñun ñu jaamu ko ndax wax na ni binduma leen du dul ngeen jaamu ma koy faral di waxe rek ñuy moytu li nga xam ne nii daf koo digee ñun ni warlu na ko ñuy koy dimbali ci loolu koy fàtte lim nuy def loolu tax mu bind nu fàtte ko ngir di ko dimbali ci lim nu warlu wax na ni sunu sunu sunu dund sunu wërsëg ak sunu am am moom moo ko warlu ku bind ku ne warlu na la wërsëg laajula ko la ko warlu léegi jaamu ko moo tax ñu moo tax mu sàkk la jaam bu nekk jaamu ko tax mu sàkk ko léegi ñuy góor góorgóorlu ci fas yéene di ko jaamu suñu kam kàttan tey moytu ci di ko dimbali ci lim warlu ba ba ba muy manqué lan war a def loolu nañu koy bàyyi xel waxtu wu nekk jamono yi ñu toll nag moom ku ne xam na ni fii ñu toll euh, réew mi soxla na ñaan ñaan koo xam ne gii day matale du du jëm ci kii wet bàyyi gële Sénégal gépp gépp gépp soxla ñaan fi ne kon nag nañ ñaanal Sénégal gépp li ko waral moo di ne xam na ni jamono yi ñu toll moom euh, fitna yi bari na ak jaaxle yi ak ak ak tànk-tànk yi dara waralul lool nag lu dul li ma waxoon léegi rek comme yàlla bi mu ñu bindee daf ñoo bind ngir ñu jaamu ko mais jaamu leen ma moo tax ma bind leen li ngeen may jaamoo nag waralul naa leen ko wàcc ku ñuy wàcc lim nuy defloo di dem di ko dimbali ci lam war lu ñu daal looloo ñu ko yóbbee te ab ab ab ni ab kër moom bu jàppee di lakk yoo koy kese du ko fay hmm. euh, yëgle rek lay doon mi ngi mel ni ak lakk jàpp rek nga téléphoné sapeur pompier waaye woote ga ak téléphoné bi ak toog du fay lakk di fu ñu tool rek di coow réew mi neexut nangam nangam kii amul benn njariñ du du du bi jàngoro bu duggee ci ab dëkk li gën mooy ñu seet fa jàngoro ji jóge ñu sakk foofu ba dootu fa jóge di ñëw xool ba xam bu fekkee jàngoro ji day wàlle ñu dànk ko du ñim daloon mu yam ci ñoom dootu wàll kenn ñu fexee faj jàngoro ji bu ñu ko fajee ba mu wér bunt ba muy jóge di di dikk ñu sakk bunt ba ba dootu ñëw lolu mo upp solo tok di di wax ak jambar rek legi euh bokki julit fuñu dajalo rawati na euh, ndigalul suñu borom li ñu genn yalla dimbali ñu ba ñu def ko ba mat ñu ñaan yalla nangul ñu jëf ci ñu ma sa kenn ku nekk ni tek jang fatiha ak ak euh, ak nas ak ikhlas li ak falakh ak nas delloowaat sa xel ci sa boroom waat yàlla tuubaat hmm. jégguluwaat ñu doog a ñaan amiin léegi kenn ku ne boo jógee fii ba dellu sa kër boo toogee sa sa li la jaaxal ak sa yitte yaa xam hmm. li ne ci sa xel yaa ko nim la ñore ba nga cay xalaat noo ko lijjantee nga delloo noonu ci sa boroom tuubaat eh, jégguluwaat bàyyiwaat xel loolu mu waxoon ni ngeen jaamu ma a tax ma bind leen te euh, lii li nga xam ne nii moo nuy jaaxal ba bay ub sunu bopp muy muy muy yitte dund bi nga jël ko jébbalaat ko bàyyi ko ci ay loxoom dina la ca jàppale te ñu fas yéenee sax ci loolu léegi loolu mooy li nga xam ne nii moo ñu mën a mën a dimbali ba ñu kii ndax ñaare jafe-jafe bu amee ci am réew wala dëkk wala aw aw aw xeet euh, wàcc yoon a koy indi wàcc yoon nag moom la lay lu mu indi lay saafara loola tegewaat ci aw yoon rek ñun ñëpp nañ maasiwaat tuub te dalluwaat ci yàlla te te bàyyeeku suñu bopp hmm. te maytu buur bi dul dee du tuxu du folliku nga wàcc ko fi di jaamu buur buy dee di tuxu di folliku hmm. dañuy bàyyi xel loolu hmm. ndax buur bii moo nu mën a lor suñu loré su loram jógee kenn mënu ko fank lu moom su njariñam jógee kenn jër sa ragal ci ñariñ lay aksi ragal ko ba japp na ñariñ la do aksi lim naan ci yow mom bindeef mënta teemu aksi ci yow lim naan nga am ko woro ragal bindef ba euh, tax ragal ga indi la nga jakk jot ci loolu nañ jël ci place ko yàlla delloowaat ci mënta fas yéene tënk ci l'islam tënk ci liñu diine di sant lépp lu ñu lislaam tere ñu di ko moytandiku te bàyyi suñu bopp ak yàlla mooy buur bi nu àttan mooy buur bi nu mën a dimbali waaye du beneen buur beneen buur jërul ragal beneen buur jërul jaakam kon ñu kenn ku nekk na def ñaan fi nga toog ci ñaan gi mooy jafe-jafe bi nekk ci réew mi yàlla teggi ko te teggil ko ñëpp ku mën a doon rek boo xam waa nguur gi opposition beeg ak civil yeeg euh, ak ak takk der yeeg ak ñene ci alba ba ak ñi tax yeeg ñëpp lii Sénégal daal moom na ñëpp ñaan jàmm am fi joo xam ne ñëppay ci jàmm lépp lo xam ne lu luñ fi séntu la ci aw ay suñu borom dimbali ñu ci yërmandeem gi ak ak màggam gi ak baaxam gi fegal na ba loola bañ a agsi wasalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu mën a jàng xasida googu ak foo mën a nekk na nga ko jàng te yéene ci suñu borom yërëm euh, réewum Sénégal te yërëm xeet bi te yërëm ñëppit nag bu kenn des ndax sëñ bi bi mu cee ñaan irham jami al wara la wax dem na banaa suñu borom yërëmal bindeef yëpp ñaanalutoon euh, aw xeetam képp wala ñanewoon moom ñëpp la ñaanaloon kon nag ku ko ci am te mën koo jàng nga jàng ko te ñaanal ci ci ci ci réew mi yëpp jàmm am fi xéewal am fi ak jàmm te yërëm bindeef yépp ni mu ko ñaane woon irham jami al waraa la wax yow suñu borom yow mi nga xam ne doo fayantoo yërëmal bindeef yépp kon nag Sénégal dugg na ci mbindeef loolu rek laa doon jottaliwaat ku ci am xasida gi rek noonu ko jàng ci bis bi yéene ci jàmm am Sénégal xol yi dëppoo nit ñi juboo euh, te ñëpp nekk benn te te dara bañ a yëngu wasalaam Thank you.